wajalilaahi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri man abaat defal ngeen ma loo xamante ni bii wax dëgg yàlla kawe na lool ci man te yàlla rek laa koy seedeel ak Serigne Touba ndax murid bu nekk fa mu ne loola la fay jéem a nekke mu xam ko nangu ko nekk ci xamut yoon wu mu koy jaaree mu nekk ci am ci yéene ci xolam euh, ba sama boroom di ko dimbale fii ma nekk nag ngeen fekk ma fi tey ci fekk yi ngeen ma fi fekkee ci ñi ñëw ànd liggéeyal Serigne Touba euh, dama ci am ñaari mbég bi jiitu mooy suuf si ngeen ma fekk di sukkoor maam Thierno Birahim bi mu koy sancee Sëñ Touba jox ko ndigal mu ñëw sanc Daaru Muxti ji mu toog fa ab diir suñ borom nattoo ko fa feebaru pes mu déplacé wu ñëw fii nekk fi fekk nañ ko fi ay yoon ni ko ndegam sëñ bi da laa joxoon ndigal te suñ borom nattoon na la fi lii te ngaa delluwaat ci moom mun leen fasu ko yéene ndax Sëriñ Tuubaa moom lu mu ko wax rek loolee lay fexe dëggal loolee nekk loola sax mu nekk fii taalibe yi nekk fee daaru musi di wëlbati suuf sa moom mu toog fii di liggéeyal Sëriñ Tuubaa bu ñu liggéeyee ba nawet jot bu ñu bojjee dugub ji fii lañ koy sëfe teg ko ci ay mbaam ay taalibe jiital ko jaar fii ci yoon dem njaareem wàcce ko fa fekk fa sëriñ tey bu ma toogaatee ba jamono dox ba ngeen ñëwaat ba fekk ma fi ni ma ñëwal ñu ànd liggéeyal Serigne tubaa man maa war a gën a sant yàlla ñëpp Sénégal gépp war nañu sant Serigne Touba mais man maa war a gën a santaat Serigne Touba bu baax moo tax aw ma ci lu ma ci sikki sàkk aw ma ci lu ma ci nattab la ndax man loolu moo ma sa nekk sama yitte maag njaboot bi ma Serigne Touba booleel daal muy soxna muy doom muy sama mbokki taalibe yi nga xamante ne bi samay mbokki xol lañu samay mbokki taalibe lañu ñoo bokk Serigne Touba ñoo bokk diine l'islam lépp dugal naa leen ci biir tabal naa leen ci biir ba noppi tamit di leen wax ne leen lii ma def def naa ko ñëpp di ci teg seen bët ñëpp war cee teg seen bët bopp waaye tamit sant naa ko bépp mbokkum taalibe moo xamante ni bi Serigne Touba dox na sama diggante ak yow bu ko defee nga defal ko sa bopp ñi ko man ñëpp nañ ko defal seen bopp tey ñaan mbokk taalibe yëpp ñu ànd koog man ànd koog ñun ñu ànd liggéey yël Serigne Touba ci taxawul ko dëkkam bi ak njabootam gi ci ni nga xamante ni bi noonu la ko yéene woon ak nam ko wax ci ñu boppam te ñenn ñu ci bari ci ñun murid yi ñu xam ko te xam ni suñu borom lu mu ko lu ko lu mu ko nangul la kon nag loole kum tàbbal ci biir war ngaa sant yàlla loo war a sant loo sant yàlla rek doyul te cant ga nag dañ koy dañ koy dëggal dëggal gi mooy di ko jëfe di ko jëfe mooy nañu xool lépp loo xamante ni luy jëmale Touba kanam la ñun ñëpp kenn ku ci nekk bul xaarati kenn du la ci soññi saa foo toll da ci soññi sa bopp loolu daal moom maa ngi koy ñaan maa ngi ciy gën a soññi sama bopp di ci gën a soññi mbokki taalibe yëpp te nga ni sëriñ bi nañu gën a doolee ñaana te xam ne fii ñu ne nekki wuñ fi lenn nag lu dul am yéene rek liggéeyal sëriñ Touba lépp loo xamante ni bii jóg na te ñu xam ni lii ci liggéeyu sëriñ bi la bu doon laaj ba bakkan suñu bakkan noppi nañ pour barke Cheikh Ibrahima Fall euh, ndax ñun bu ñu goree bu ñu goree waruñu woon a toog sax di nekk ba ngeen di ñëw di ñu xaar di ñu di ñu di ñu soññi si ñun ñoo waroon a jóg bu yàgg ñëw fekk si leen barke maam Thierno Birahim loolu moom ndax noonu la mos a demee borom daaru moo xam te Serigne Touba daawu ko wax dara ba noppi wëlbati ko di ko soññ bu ko xasee wax bu fa jógee rek la ko Serigne bi waxee sotti na ba noppi xanaa kay la ñuy laaj mooy Serigne bi ci wan waxtu la ko soxlaa mu indi ko waaye liggéey bu lu sotti la ba noppi wax dëgg yàlla waaw bu ñu waxee dëgg te yàlla rekk tax man bu ma duggee Touba li may njëkk a xool mooy seen liggéey nu muy doxee su mu wu ngeen xàll lu ngeen fa tàmbali téwo bu ngeen gas lamp bu ngeen samp xam nga mbir ma nag boo ci bokkee moom ah boo ko waxut sa sa bët a koy xool yaa duggee Touba maa ngi xool seen empreinte fan ngeen ko teg <laughs> loolu moom tey dama leen koy wax tey mu leer nañ mu wóor ni leen nag du man dong hmm? du man dong kon la ngeen di def te ñu teg suñu bët nañu ànd ñu ñëpp góorgóorlu ca rek fexe ba noonee la ko sëriñ bi bëggee ñun ñu sax ca noonee nekk ca rek wax ji nag lu mu bari bari bari àdduna looloo ko àdduna am duma leen ko jàngal ndax yéen ñi fi daje ñëpp kenn ku ci nekk jàng nga ba dañu ko kon xam ngeen doomu aadama yi ni leen sama borom tëgge ak li mu def ci ñoom ak doomu adama yi ni ñu melal seen bopp ndax dafa am loo xam ni yàlla la am loo xam ni nit ki la liy yàlla ci ñun amut sikk waaye lay suñu bopp loolaa am nu mu mel noo xamante ni bi nag bu sa moroom yëkkatee dara bu ci sa bët tegoo saw làmmiñ mën na koo tudd sama xel mën na koo xalaate neneen lu bokkut ak noonu waaye yooyu yëpp amul solo kii wax moom li mu bëgg a wax rek lay wax hmm? kii defit bu mënta góorgóorlu ci def lu baax na ko leer ni leneen lu mu def boppam rek lay sonal kenn defut kenn dara du dëgg kon nag ñun lii nga xamante ni bi ci lay nekk di ci góorgóorlu di jéem a sàmmal sëriñ bi. ak di ko jéem a saytul li nga xamante ni bii moom la suñ borom gërëm ci moom. ba ba ba fayee ko ko. ah di ko ko sàmmal nu mu nu mu nu mu ñoŋee. ak nu mu gën a taaroo. loolu rek moo ñu war ci loolu rek la ñu nekk yàlla nañu sama borom dimbali ba yaakaar moom tase liggéey baa ngi noonu ñun ñëpp ñu ngi ci kon mbokk taalibe yi liggéey baa ngi noonu Touba ca kanam ñu ànd ñun ñëpp rek Touba ca kanam a kanam a kanam a kanam a maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat